nii naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse del sa kaas kafe nga guux bala ngay naan ma xew ci réew mi askanu sunu gaal yëgle kaay gi ne tëtëtët mani la accident yaa ngi bëgg a bari nag ci diggante Bawal Linguère ak Saint-Louis yëgle kaay gi ne ñaari xale yu am 6 ans daal wata daal di tël am na geneenu xale goo xamante ni yëgle kaay gi ne moom itam dafa lab day mu nekk mbir mu yéeme te doy waar lii benn xale bi de yëgle kaay gi ne ab chauffeur ne ne am na ca saasi am ku ca faatu am ñaari blessure yu metti yu doy waar blessure ya bëri woon na de lool sax ci ñi nga xamante ñoo di étudiant yi yëglekaay gi ne ñoom day danoo am lu leen naqari tax nu yëngu-yëngal wane seen bopp waaye miti woon na lool safoon sàpp ci ñoom yëglekaay gi ne blessure ya bëri ñoom nag li leen naqari bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nouveau bachelier yi di seen gan yi nga xamante ni di seeni rak yi ni ñu ngi leen di orienté logement ñàkk d'infrastructure pédagogique yëgle kay gi ne ñoom itam de ñu toll ni tembe ñu ngi ci guddi gi bët setagul ci ay jafe-jafe dëgg la ne yooyu de santé yi kay yëgle kaay gi ne dañ leen a wax ni leen ñun waa état di nguur lañ leen doon dimbalee dañu koy arrêté ma mutuelle de santé yi nag yëgle kaay gi ne nee ñu nag loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg jaral ne leen ñu bañ a faj dëgg dëgg mbaadu metti ci askan wi yëgle kaay gi ne askan wa jóg taxaw temm ci jàppale ki nga xamante ni moo bokk ca ñoom yëgle kaay gi ne kooko day Nick Doff lay wuyoo moom Nick Doff mi nga xamante ni moom la ñu denc ci kaso bi yëgle kaay gi ne rappeurs yi jóg nanu rappeurs yi jóg ni waay waay ni moo di Nick Doff mi la yëgle gi ne bokk na ca Fou Malade bokk na ca Ndongo bokk na ca Simon Kilifa ñoom ñëpp lu ñu bëgg moo ñu libéré nit dof mi lay cëy réew mi képp ku fi jàpp daal say mbokk lay wàllu gisoo Pape Alé Niang waa CAP parce tu xibaar yi dañ ñoo ko doon dimbali moo yow ñii ñu ñoom la waral ñu jàpp leen moo di attaqué ga nga xamante ne day nee ñu oto alkaati du fa dugg ñoom takk der yi doon amal li nga xamante moo di opération de sécurité na yay bañ ba wut leen bañ lay ma wax ñuy sànni xeer ew eh moo oh, kaay ma wax la nag ñanu jàpp ñëpp gone la de yëgle kaay gi diggante 16 ans ba 25 ans am ñoom nu amal yëgle kaay gi am na ku ñuy joxoñ baaraamu tuuma kooka ab gardien mosquée lay wuyoo jumaa lay garde boole nañu ko ca gànga de tey réew mi gàngu ci am la naqari rek booloo ànd maase wàcc ci mbedd mbedd mi wàcc yëngu-yëngal ñii de duñu gang waaye ay xale lanu ay élève lanu yëgle kaay gi ne ca Mbàkke ñoom nag dañoo jóg taxaw temm ci rek ci ñu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne moo di programme yu leen di jàngal yëgle kaay gi ne ñoom gone yi day neenu da ngay xool rek seen œuvre yi nga xamante ni moom la ñu war a am yëgle kaay gi ne ñoom day neeñu suñu maamaati maamaati maamaati maam ya moom lañ doon jànge waaye lii nii mënuñoo yóbbu fenn waaye revue de jour ko xamle gone ya ca Mbàkke day neenu faaw rek nu xoolaat bu baax a baax programme ko mu dëppook jamono jamono jamono ji la teer wi yi nga xamante ni daa dëppoog moom yëglekaay gi ne te ñu bare bari <laughs> Sénégal moomu ko de Abdoulaye Balde ma nga xamante ni di DG génn naa wax ne leen tey leen bu leen juum teer bi ci suufu askanu sunu gaal gi di ab teeram ci teeru Sénégal gi nay leer askanu sunu gaal a ko moom ci bu wér yëglekaay gi de la mu xaati moo di une propriété entière et exclusive de la République du Sénégal libération yëglekaay ni ma kaay kaay kaay bul dem xanaa xamoo ni askanu sunu gaal a kaay ne réew mu askanu sunu gaal gi ci juróom fukk ak dëkk yi nga xamante ne ñoo ne ci Afrique Sénégal bokk na ca fukk yi njëkk ya ci Afrique ba mu daaj boo wàññee juróom-ñett day moom nga cay teg yëgle kaay gi ne wàllum doxalinu yorinu réew di indice moo Ibrahima en Afrique gi le Sénégal day fi toll ni tembe mënees na ko dippee un bon mais nag pour mieux faire yëgle kaay gi ne ma kaay moo xal nag ci diggante bi nga xamante ne ci la amélioré jóg laa la wax fi tax naaw ca kaw bokk ci dëkk yi raw ci wàllum gouvernance ci diggante Macky Sall ak Ablaye Wade di fukki at yi nga xamante ni moo nekk suñu ginnaaw di diggante 2012 ba 2021 2021 Sénégal ci jëmmi boppam moo jëloon première ci wii mois nekk neuvième ci 54 pays yëglekaay gi nee waaye nag ci diggante 2017 ak nëgële fi mu toll nii tembe ña ngay commencé wàññeeku nag yëf yaa ngay commencé yëngu solo yëglekaay nee bu nu fukkandikoo nag ci fukki at yi mujj yi laa wax askanu sunu gaala nga ca kaw indépendant yëglekaay nee bu nu ñëwee nag fii nga xamante moo di Afrique de l'Ouest Ghana ko jiitu moom askanu

mën a sax fopp ku bi indi ci réew mi record yëglekaay ni ma les lions a la porte de l'histoire sunu lamb yëglekaay ni ma ngir bokk ci histoire lamb ba faw Bombardier faaw nga daan ki nga xamante ni moo di Tapha Tine ni ki le 12 février nga mën a terminer en beauté waa réew mi askanu sunu gaal gi yëglekaay gi ne li ko yàq bokk na ci wàllum sëriñ tuggi ci réew mi wàllum charlatan ñaanalante xonjamante gu doy waar gu am ci réew suur sulli sangu suuru lépp ngir bëgg ñaan nga nangu kat mala yi ba mu leen di suul ña ngay dund yëglekaay gi ne moo taxit sëriñ bi ca ceemaan yëglekaay gi ne ak jinneem yëpp boole nañ leen fotoŋ jàpp ndax danoo nax genn yóbbu la tolloog 9 millions am moon ñun fu nu jëm ak sëriñ sii du nuy sëriñ damaa juum fu nu jëm ak xojjamkat yii doy na waar si laatir bu baax rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel caageen coof jërë ngeen jëf jaageen yi xarit yeeg dëkkandoo yi jaajëfal nañ leen bu baax baax jox leen seen wàcc waaye mbokk yi gi ci nekk ci réew mi sëriñ gi ah waa da ngay seet lii ah lu ne leen di def loo rayal nangam defal nangam indil barki démboo njaay gis ngeen la xewoon ca tefes ah nu euh, sulli euh, ndaw si sulli néew xale bu am ñaari at dagg loxo ba nara na sotti gone ga essence taal ndax lan non on est dans quel lan la lan moo tax ñu leen di def lool sëriñ si moom nu yàlla moomatunu sëriñ si moom nu di ñu boo defee lii am lii boo defee te bii la ah, ay ndeysaan ndeysaan te turu yàlla yi ne fi wird salaatul faatiha ne fi ah julli ne fi ah gëm yàlla doyloo ko ne fi defoo ci lenn lu dul topp kër sëriñ si rek di weexale ay cent mille ak deux cent mille cinq cent mille un million xoolal neuf million neuf million xalaatoo ci lenn lu dul jox ko sëriñ bu ko yóbboo lu suñu yoon ñun sax ah xam nga nag yenn yi ak tayef la waaye sëriñ si yéen dimbali leen nu nag. bu ñu ñi dofee bu am ne ñu dof bay ñëw ci yéen di raam ci yéen ak a nërëm nërëmi ngir ngir waaye dama juum bu xaaba yi sa waaye ñamana nga toog ca ruq seeni ruq ñu leen fay fekk woowunu kenn ñuy def te yàlla tax ñaman nga toog ci seen ruq ñu leen fay fekk woowunu kenn ñuy def te yàlla tax waaye koo fi gis mun a a mana mana mana mana du moom ñaata yoon lan fi wax Sénégal day gañe lii day def laa te dara amu ci ah gi ci ki la ci dàqat wax lu dul dëgg nga gën a gëm waaw ñun ci ban réew la ne mujjug jamono ngi ni ay fen ay féete kaw dëgg ah ndax lan seet ay waay ay waay ay waay dañu delluwaat ah nanu delluwaat seetaan leen seen bopp delluwaat leen ci li fi maam yi bàyyi woon ah bu dee jullit nga del jàpp di julli sant yàlla ah def li la wat sa diggante yàlla bàyyi ko sa bopp am na ay ay ay ay salaatul faatiha yoo xamante ni boo ko de yàlla mën na la ciy génne nga def ko te bàyyi topp kër sëriñ si liggéeyal ma diw mu nangam ma diw raw ma nu mu tudd turam nangam turam te boo demee kat lenn rek la ñuy wax ku ñuul ki ku gàtt ki ku xees ki Sénégal ñi fi nekk ñëpp ñi dañoo ñuul ñii gàtt ñii xees ah ki ngay xëy di dajal moytu ko ko fii ku fi xëy dajak nit ku fi xëy dajak nit yooyu lan lay wax nga après nga ni nangam ah! ki nga dajaloon bërki démb ki nga nangam ah bërki démb de am na ku la seet si heure sàngam bu yor yor nangam nangam timis gi lu ne danañ la ko wax te liñ lay wax ñoom dañ koy dund waaye non non non il faut arrêter il faut arrêter il faut il faut ngeen jëlal seen bopp seeni matukaay bopp yéen nit ñi dellu ca yàlla doyloo ko c'est ça c'est ça moo gën ah sama xol bi jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk rek bàjjan xuja lii moom xaw ma nees koy waxee rek bàjjan tey moom mer naa moom tey moom mer damaa mer waaw ah, bàjjan mer laa wax damaa mer eh waay yow ah, ma dinaa tudd ñu commenté moom amul problème ndax gaa yaa ngi may signalé ci suuf naa ma bul fàtte ñu commenté dinaa leen tudd waaye damaa mer damaa mer waaw eh bépp sëriñ si nga xam ne déggal maanaam sëriñ si buxaaba yi nga xam ne xamuñu dara ñu leen di nax di lekk sunu xaalis te yow di nga gis ku am fukki fukki at ci sëriñ di fa dem te mënta mënta bouger yootaa mënta changer ak la après après lan ñun yaayee liggéeyut wala lan la ah non non waay ah man nuyu sama gaañ yi Amadou Dieng maa ngi koy bégee Poulo bégee naa la bu baax a baax Diagne distribution asta kontaan naa ci yow macha allah Ibrahima Hakil Mbuub maa nii bu baax a baax am euh, Ndumbetin sama xarit la maa ngi Papa Diop maa waa gaañ yi yéen yéen ngeen ni ndax euh, le trois laay anniversaire ah waaye yéen sama anniversaire bi nii rek ngeen koy bàyyi <laughs> yee bëgg naa nag waa Italiano ay sondoom ñoom Aminar Ndiaye ñëpp bàyyiwuma kenn ah le trois la anniversaire ba de le trois bii di ñëw. aca Aboubacar Dabo anniversaire baa ngi noonu Papa Thiaw bu leen ko fàtte ah Cheikh Omar na ko ñëpp fanoo El Hadj Sakho Poulo bu leen fàtte anniversaire bi jibi ba le 3 la Pablo ah le 3 la incha allah bàcc maa ngi lay bëgg bu baax a baax Yamar Dieye borom pirum dëri moo sekk maa ngi koy nuyu Aminata Fall également yow itam bëgg naa bu baax a baax Papa Thiaw Dame Kunta euh, Bamba Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax Absa Gueye nuyu bu baax a baax Soda Mbodj waaw waaw anniversaire bi de le 3 la nuyu naa sama xarit daam borom Argentine Demba di moes Demba borom Argentine maa koy bëgg bu baax a baax di nuyu Abdoulahat Guèye bu baax a baax xaadim sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam xaadim Seck wala Moustapha Seck loo ci wax mu dem maa koy nuyu bu baax a baax bëggee ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay seen mbokk seen xarit Fall Dammel sëdd la ci buur sin bàyyi Serigne Sall jox leen dig daje ba suba ak ak salaam jërë ngeen jëf